المصطفى نويت ما يجدد de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement mbokk yi ñu ngi am mbégte tey jii ànd ak euh, Pape Djibril Fall di njiitu les serviteurs fas yéene nag dem si jongante yi war a am si juillet deux mille euh, vingt deux euh, di élection yooyu ñu xam ni moo ñeel pencum ndaw réew mi tey nag mu ñëwoon fii si Mbàkke ñu ni kat bala muy dem foog nu waxtaan ak moom si tànk yi taxoon mu jóg ak yeneen sujet yoo xamante ni xëy na bu ñu demee ba si biir dañ si dellu si honorable ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Babacar kontaan trop si jokkoo ak yow. Euh, di kontaan trop sa surtout si ni ma gisee ne <clears throat> nit ku passionné nga te loolu dafa am solo média dafa am solo média mooy médiateur communication sociale la objectif bi mooy accompagner suñu processus de développement économique et social loolu moo tax ñuy wax ne le journaliste il n'est pas le centre mais il doit être au centre waaw nekkul ki nga xamante ni moom moo nekk ki ñëpp war a bàyyi xel waaye moom dafa war a nekk ki nga xamante ni dafa war a fexe ba ñu bàyyi xel ñëpp waaw moom du ki ñu war a bàyyi xel waaye dañoo war a fexe moom dafa war a fexe ci taxawaayam ba ñu bàyyi xel ñëpp loolu moo tax ku mel ni El Hadj Sidi Lamine Niass na ko suñu borom dolli leer ak yërmande bi mu jàngee ci keer moom communication sociale la jàng bi mu ñëwee mu tijji média ngir jotal kàddu gi ngir jotal <clears throat> moo tax mu ne. Walfadjri mooy la voix des sans mooy ñi nga xamante ni ñëpp dañoo téye seen gémmiñ ba mënuñoo wax lu ñu xalaat te seen xalaat boobu mën a jëriñ nit ñi mu ne ngalla dina leen jox kàddu ndax nit ñi bu ñu waxul seen xalaat jëf seen xalaat te wax xalaat bi ñu jubbanti ko joyanti ko moo gën nga jëf xalaat bi ndax boo jëfee xalaat bi rek musiba mën naa am ndax bu dee xalaat bi baaxul donc loolu moo tax euh, ñu lay féliciter Babacar Euh, di xeli féliciter aussi chaine bi Xibaar 24 euh, di la souhaiter aussi succès bu mag xam ne média aussi boo koy def da nga koy dëppale ak war may dëkk bi nga koy defee te dëkk bi dëkk bu tedd la dëkk bu màgg la dëkk bu sell la mais surtout borom dëkk bi daf ci tegoon bakkanam daf ko bëggoon nee nañ sax lu mujj ci fan yi mu def ci kaw suuf soo bu ko bëggaan bégal sax dangay tudd tuubaa rek mu bég sama dëkk ba lay wax waaw euh, donte moo ngi nekkoon en résidence surveillée à Touba à à donc loolu yëpp li ma si jubloo wax rek mooy euh, liggéey boo mën di liggéey soo ko seetlalee rek mën nga cee dajeeg sa ngërëmal borom. te te te beneen bi mooy ñu moytu ci di ci wut alal <coughs> muy enseignement muy santé muy journalisme man je consider que nit waru cee ñëw pour wut xaalis nit daf ci war a ñëw pour dimbali askanam dimbali société am wut ci ngërëmal yàlla comme yàlla noppi na ci wërsëg bi soo ko wutee ni nga ko wutin bi bu rafetee lu ne mën nga ko ci am en tout cas maa ngi lay gërëm bu baax di la sant. Euh, foofu la ñuy sarale sax laaj parce que da nga ñëwoon ci màggal gi tudd nga ko tedd ki Serigne Touba tey euh, Mamor Diarra euh, si yoon wi Mamor jaara taxawaayam maanaam si wàllu mouridisme tey boo soo ñëw parce que ma lay gis sujet yu mel noonu daf lay intéressé donte sax ku la gis da lay jàpp ne xëy na yooyu intéressé wala journaliste nga waaye dafa Euh, diine dalaa itteel mag ñi dalaa itteel mag ñi te loolu mën a wax si ki waraloon màggal gi mag yi mag lañ koy wax. Euh, sëriñ Mame Mor Diarra li ci ñëpp xam <coughs> mooy ni ko sëriñ Bachirou décrire ni ko sëriñ Bachirou junjee ci Minanu Baaxil Xaddim mu nekkoon mu nekkoon ku màgg ku tedd mu nekkoon koo xamante ni it fa mu ganee àdduna ku fa ganee àdduna rek xam li la war def li la war ñu ñu ñu ñu ñu mu mu ganee àdduna ci ëtt boo xamante ni ëttu xam-xam la ëttu yiw la ëttu mbaax la way juróom wu jigéen soxna jaariyatullaahi mariama buso dégg nga ñu ne turam turam wu njëkk moo doon mariama soxna mariama buso itteem moo tax mu dem ba nekk jaariyatullaahi volonté bu ma am moo dem ba nekk moo dem ba tax mu nekk la voisine de Dieu dëkkale yàlla waaw nga xamante ni moom tax na tey suñu neexee sax duñu jàngale soxna Rabia mën nañoo yem ci moom te loolu lu am solo la ndax Rabia day sori waaye tey moom mën nga koo xëcc mu nekk benn model parfait muy soxna jaara sëñ Maam moor Jaara ak Cheikh Ahmadou Bamba mënuñoo ñàkk ambition ci kaw suuf ndax kay seen wayjur ba muy dem di fekk sëñ Mame Mor Anta Sali ci la décliner ambition ci fa mu jëm waaw daal ne fa ma jëm de su dul woon li sunu borom wax ne yonant yi lim bi mat na fa ma jur fa ma jëm dinaa fa am yonant loolu mooy ambition daal di ne dama bëgg a intégrer le cercle sama yéene mooy bokk ci cercle boobu nga xamante ni des saintes femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de l'islam de l'islam wala de l'humanité noon lool nag ci njaboot gi soxna jaara son noon lool nee nañ demoon na ba bu dee moom moo aye ndongo yëpp dañuy kontaan ndax njëriñam bu mu amoon impact bu mu amoon ndax leadership bu mu occupé woon très donc loolu moo tax sëñ ma moor loo donn mu dëgër moom loolu la donn waaw loolu la donn nekkoon jaamukatu yàlla bu mag loolu moom mooy mënut def leneen loolu donc nekkoon jàmbaar nekkoon borom euh, teraanga nekkoon borom sutura mais surtout nekkoon koo xamante ni ku xamoon responsabilité bu mu am ci liggéeyu Serigne Touba bi la mu assumé ko euh, gunge ko jàpp ci ci fànn yëpp euh, ba sunu borom boo gisee relation bi doomu Serigne bi am ak moom ci ngay xam ne la mu doonoon mat na ko sëkk donc loolu moo tax bésam tey bésu fàttaliku la bésu ñaan la bésu barkeelu la bésu ziyaar la bésu jokkale mbokk la waaye bésu fàttaliku aussi moom jaar-jaaram la woon ngir ñun tam ñu mën a xenc loolu mën cee jaar. sa candidature mën nañu wax ni Sénégal yi doon koo porté mu méngoog loo xamante ni yow da ko doon dund ci plateau yi euh, tey bi yàlla defee nga bëgg dem daagaan baatu askan wi mën nga dellu si si lu waral euh, nga tudd sa bopp d'abord les serviteur waaye tamit ban objectif moo tax nga nga bëgg maanaam bokk ci course bi ndax Sénégal gi dalaa doyul ndax ñi fi nekkoon da nga jàpp ni danoo matalul seen mission. xam nga tey Mbàkke la ñu nekk xam nga yow wóor na la yow yaa ma gën a xam ne député yi nekk fii jëriñuñ dara lu askan bi xam nga loolu xam nga ko loolu nag moo tax ñu jàpp ne assemblée nationale dafa am une défaillance institutionnelle moom la ñu bëgg a joyanti yéene boobu la ñu am yéene bi ñu am mooy jàpp nañ ne kuréel gu am solo la ci contrôler l' action de l' exécutif évaluer laction de l' càmbar li nga xamante ni gouvernement bi moo ngi koy doxal saytu ko xool waaye tamit dimbali gouvernement ci proposer ay loi waaw ci wàllu mbay mi ci wàllu napp gi ci wàllu càmm gi ci wàllu enseignement ci wàllu santé ci wàllu société waaw mooy suñ dundin waaw bi nga xamante ni daanaka doy na waar loolu yëpp dañ ci war dégg assemblée national waaye li gën a am solo d'habitude doo ci dégg assemblée national loolu moo tax ñu jàpp ne taxaw joyanti mbir yi farata la loolu moo tax ñun ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu ko àndal Euh, ay jàmbaar yu yu mag yu jàmbaaru fàkk tëdd sëñ Fallou Sylla mi bokk sëñ Xaadim Sylla mi bokk ci donc ñooñu ñëpp euh, ñooy ànd liggéey bi fas yéene ko taxawu pour taxawu sénégalais yi am du doon waxi kese <coughs> waaye jëf lay doon taxawaay lay doon it ju mat sëkk lay doon waaw itte ju mat sëkk lay doon loo xamante ni xëyuñu rek kenn ci ñun xëyul rek tàbbi ci ay lu mu yàgg nësër la daan ci góorgóorlu ci station yi ñu nekkoon tey nag ñu jàpp ne jot na sëkk yërmande bi ñu am ci askan bi ñu laaj leen seen baat ngir gën leen a mën a taxaw. Euh, bu nu ñëwaatee tamit euh, si wàllu woow ñu jàpp ni sa commencement tàmbali bi dafa metti Sénégalais yi sax ñu ñu lay raayee si réseaux sociaux yi naan ni nga tàmbalee dafa bari coow am sa saw si dibee tuumaal na la def nga fi euh, benn conférence de presse mu mujjee ayee. xiiroo ŋaayoo yooyu noonu est-ce que du la tiital. xam nga nag ñun euh, sëñ Babacar li sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma doon wax xam nga nit ñi moom mënoo leen a wax waaye ñoom waruñu laa tere jëf àdduna benn waykat dafay wax ne àdduna kenn ku ci nekk ak sa rôle ñii dañoo décider nekk ay spectateur ñi nekk ay acteur ñun dañoo tànn nekk ay acteur kenn ku ci nekk ak sa rôle kenn ku ci nekk la ngay def na nga fexee def ko nu mu gën a baaxee rek waaw ku nekk ñi war a wax nañu wax ñi war a jëf di jëf rek. Sénégalais yi dañ la bëgg ñu ngi koy wane mais est-ce que am nga maanaam moyen boobu noonu tamit pour mbëggeel boobu nga mën ko matale maanaam département yi bari na département bu nekk nga am fa ku la fa toogal. ba war a mën a bokk si lii ngay daagaan am majorité parce que da nga wax sànq ni bëgg nga euh, maanaam ñoŋale li fi nekk waaye day fekk nga am majorité parce que lu loo bëgg-bëgg loo am am yéene yéene maanaam boo fa amul baat yu ëpp doo ko mën doxal donc est-ce que matal nga loolu colère gi mooy fu nekk nga am fa ku la fa toogal bokk gañe am fa majorité mën a doxal. mu dafa kilifa gu nekk Tibet Dalai la tudd dafa wax ne bu dee da ngaa jàpp ne yoo dafa tuuti ba mënu la lor mu ne tëjul ak moom ci benn néeg rek yow. tuutiwaayam boobu bu dee da nga jàpp ne mën loo lor tëjul ak moom ci benn nekk xam nga mbir mi du am na ñu bari tey te amuñu benn njëriñ am na ñu tuuti rek di njëriñ lu bari ñun li ñu gëm mooy bu ñu fa eggee ak nu ñu mën a toll dinañ fa am jeexital bu mat sëkk loolu lañu gëm waaw loolu lañu ñu gëm leneen li tamit mooy euh, dugg assemblée nationale dugg assemblée nationale nekkut li nga xamante ni moom moo ñu gën a intéressé. dugg assemblée nationale nekkul li ñu gën a intéressé li ñu intéressé mooy duggin bi duggin bi nan lañu fay duggee loolu moo ñu gën a intéressé waaye taxawaay bi ñu fay taxaw mooy képp koo xamante ni sa baat sa jàmbat say jafe-jafe yóbbante nga ko ba sonn juróom benn fukki at ak ñett ngi nii ñu ngeen di joxe seen yóbbante te eggut ñu nag loolu lañ bëgg a eggale lii rek la honorable bu ñu ñëwee ci réew mi pëcc bi bëri na coow li bëri na ay décisions yoo xamante ni da leen bëgg invalider da leen war a rejeter yu ni mel tey jii nguur gi ak kuje gi kan moo nekk si yoon. ki nekk si yoon nag yoon moo koy wax <laughs> ki nekk si yoon yoon moo ko mën a wax Babacar li am solo rek mooy que ne lii yëpp pëcc bi yëpp man jàpp naa ne yéene rek lay wane ci doomu senegal ci jëriñ seen réew. mu nekk ñu nekk ci kujje gi muy ñeneen ku nekk moo ngi yëngu ngir bëgg a dimbali réewam li am solo rek mooy euh, ñu xam ne Sénégal c'est une promesse de paix et de justice léegi nag justice moom jàmm lii tax mu am mooy justice am moo tax saa bu ñu yaakaaree ne fenn la mbaxane doone benn suñ fa demee ngalla nañ fekk mbaxane doon fa benn ba ñu mën a def justice ni mu waree li ma gëm mooy élection la participation c'est la règle ñu invalider nit loolu mooy l'exception donc nan la ñu mën a indee ci règle yi yërmande ba nga xamante dinañ mën a joyanti mbir yi avec une pédagogie ba nit ñi mën a bokk ci jàmm ak salaam même bu fekkee ne jàpp naa ne élection yi du ku ñëw bokk loolu tamit mooy dëgg loolu tam mooy dëgg parce que tamit xam nga démocratie yi ñu am daf ci am ñoo xamante dañoo jàpp ne ci démocratie bi lañu war a profité pour lekk xaalis waaw dañuy naxante fi mu ne nii bu bu parenage ñëwee nga gis ay nit ah, dem di wutal nit ay parrainage wut ci xaalis di ci lekk xaalis ak lu ne am ñoo xamante dañuy fay lu ne ñu dugg ci sa difficile yaa ngi dégg alors que warut demee noonu waaw foog ñu war a xam ne carte électeur amul njëg te ñun message boobu la ñuy lancé aujourd'hui mooy que ne bu ñu eggee ci wote ñu xam ne carte électeur amul njëg waaye daf lay engagé pour juróomi at yi ñëw te boo ko xasee joxe rek joxe nga say loxo ñu takk ko juróomi at amul élection mi mandat de juróomi at rek mooy mat ñu doog a càmbaraat léegi ñi voté woon nañu ñoom waruñoo xool sax ñoom fi mu ne dañoo war a càmbar ñi fi jot jaar xool fan la ñuy joxe seen carte waaw ah, mais pëccëxoo bi ñuy wax ak yooyu yëpp man jàpp naa ne si jàmm rek lay mujj ñu waxtaane waat réew mi réew dañ koy péncoo kenn du ko pàccoo comme mënuñu ko séddoo foog ñu waxtaane ko et puis encore une fois que la médiation puisse être de rigueur et que les médias jouent ce rôle de médiateur waaw ah, bi nga xamante ni moom mooy permettre ñu mën a xam euh, fan la dëgg nekk donc euh, et que les uns et les autres aussi que personne ne joue le rôle de pyromane léegi sa diggante ak Touba euh, département de Mbacké sànq maa ngi ko doon tàmbalee ni la euh, zone bi kat euh, dafa bëri ñuy voté te ñu bëri yaakaar nañ fi aussi pour ñu jàppale leen yaa ngi soogay nag tenté sa première fois si wàllub élection ndax électorat bi nekk fii da nga koy daagaan ak nan ngay def tamit ba maanaam mën a matérialiser loolu diirub bi dem si élection yi parce que c'est la première fois aussi ngay laaj. waaw Touba moom ni ma la ko waxee léegi rek dafa am solo lool. fànn yu bare bare bare xaaruñu it ba bëgg élection wala bëgg am wala bëgg am mandat di doog a wane yitte ci sun di doog a wane yitte ci Touba ñëpp xam nañ sunu diggante ak Touba sunu dëkk la suma maam yi fii lañ leen suul donc euh, c'est une relation boo xamante ni bu yàgg la suma maam bi ñu ma tuddee. bi ñuy toj xeeru jumaa ji pour defar ko def na fi ñetti weer ci carrière yi ñetti weer sëñ lu fekk na ko fa Chérif Assane Fall moo doon coordonné seen présence foofu ñun ñu nekk ci famille Chérif Assane nekk ci famille Cheikh Ibra samay maam seen cosaan foofu la sama papa wóolare woon trop ak Serigne Saliou Mbacké donc tey Touba man awma fi sens interdit seen doom la seen taalibe la seen njaboot la donc li ma jàpp nag mooy loo ne du ci nekk rek sa waaye ci nekkul Touba moom wax dëgg yàlla sunu Touba la amul amul problème incha allah. waaw ñu tëj maanaam waxtaan sant yàlla bu baax sant yàlla sant sunu borom moom mi nga xam moo ñu permetre ñu ñëw tey ci bésu sëñ Mame Mor Diarra bi di gërëm waa Touba yëpp di gërëm presse locale Touba yëpp seen taxawaay seen posture seen jàppale mais surtout seen sàmm gi ñuy sàmmale sëriñ Muntaxa wormaay dëkk bi. loolu lu am solo la amul dëkk booy dem te doo nit ki di def lu ko neex di wax lu ko neex sàmm war may dëkk bi c'est capital c'est capital donc yow aussi ma lay gërëm en tant que enseignant pare nga ñëw nekk dans le milieu des médias kenn du la jàngal éthique et déontologie dinañ xam ne dinga amee am une grande préoccupation ci réew nan lañ koy yore ak nan lañ ko war a doxalee ak surtout nan lañ mën a fexee ba nit ñi jàng xam di leen gërëm bu baax di leen sant nu mbégte ànd ak honorable Pape Djibril Fall jiitu les mbokk yi xanaa rek jox leen daje beneen yoon si yeneen jotaay jërëjëf. Rafah TV de télévision culturelle waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement